بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi mbokk yi jàkkaarloog jataay bii ci weer wu tedd nga xam ne weer la woo xam ne lislaam amoon na ci ndam waaye yàlla xaasaloon na ci sëriñ tubaa xaadimu rasul muy weer wi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaani woon fekki boromam subhanahu wa taala ba sun borom jox ko sëri caam bu duun boobu nga xam ne képp koo xam ne tabbi nga ci bàmmeel buñ ko seetee sa lépp mag ca fànn googa sun borom mën na laa yërëm tabal la àjjana bis boobu mooy bis bi nga xam ne moom la yàlla xaasale woon Serigne Touba doomam ju baax jii di Cheikh Mahamadul Fadal di taalibeem ba gane ci woon jamono ca Daaru Salaam bis boobu nag moo del siwaat muy màggalu Kazu Rajab weeru xiiwal ak wow nga neel teruwaat na moo tax ñu waat ndigal ci Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér ci njiitul Serigne Abo Baraka mi nga xam ne tey jii mooy jëwriñu kër Cheikh Mahamadul Fadal yëpp waaye gis ngeen li ubbi jataay bi mooy leen tegtale liggéeyub Cheikh Mahamadul Fadal bu yàlla nangu Serigne Sidi moom Cheikh Abdoul Ahad ngeen jàkkaarloo moo ubbi jataay bi ñëpp xam taxawaayu Serigne Abdoul Ahad ci jamonoy Cheikh Mahamadul Fadal mbake waaye ñëpp xam diggante Cheikh Abdoul Ahad ak Cheikh Mahamadul Fadal ñu yebal fi seen rakk ji nga xam ne moo yore seen kaddu di Serigne Abdoul Fatah Mbacké moom Cheikh Mahamadul Fadal mu fegoo ak ay rakam Cheikh Mahamadou Mourtada waaye fegoo ak mbooleem jabootu Cheikh Mahamadul Fadal waaye bu ngeen gisee jataay bi mbooleem ña nga xam ne ba Cheikh Mamadou Fadal di liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bii nga xam ne booba ndox yombu fi dara yombu fi ñam daan gestu di gis seen i maam tey jii ñoo wër njabootu Cheikh Mamadou Fadal gi koo fi seen maamam toppoon na Cheikh Mamadou Fadal moom la yàlla nangu ab liggéeyam moo tax ñu toog ak njaboot gi nag fas yéene waajal bis boobu woote ko ci turu sunu sëriñ sëriñ Abo Baraka ndi xalifa Cheikh Mahamadul Fadal nee na yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér barke xadimul Moustapha barke Cheikh Mahamadul Fadal di jëwriñam di jëwriñam ci turu jëwriñam nee na ci turu jëwriñam Cheikh Mahamadul Bachir ak njabootu sëñ Fallou gépp bi nga xam ne ci turu sëñ Abdul Fatah mi nga xam ne nag mooy jëwriñu màggal gi mooy jëwriñu màggal gi ànd ko rakkam yëpp ànd yëpp ak bokk yëpp ak bokk yëpp taalibe yëpp ak taalibe ñoo ngi am mbégte bu baax ñoo ngi am di ñaan bokk yëpp ñaan bokk yi ak taalibe yëpp ñu ñëw bokk ci mbégte mi ñu ñëw bokk ak ñun mbégte mi ñëpp xam nañ ko ndax mbégte mi ñëpp xam ko mooy Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne mi nga xam ne ñëpp la jaboote ñëpp la jaboote ku dib jullit ku dib jullit ak foo a nekk ak foo mën ne jaboote la jaboote na la kon bisam bisam baa ngi ñëw kon bisam baa ñaan ci barke sëñ Touba képp ku taxaw Touba loo fi loo yàlla nga ko am yàlla ko koo xam ne mënoo ñëw képp koo xam ne mënoo danañ la fasaale danañ la fasaale li ñu am fii li ñu am fii law ba àgg fépp law ndax lépp man naa ne sëñ Touba dafa yaatu ku ci bokk ku ci bokk wutoo xatal ndax bi muy ñaan suñu borom ne ko irham alam jamee xal wara baat la boo xam ne yomb na nii yomb na nii waaye bu diis la kenn musta àgg suñu borom foofu ci àdduna musta am moom rek moo ko mas a ñaan suñu borom kon nag ku bokk na yaatal noo ngi ñaan rawatina ñi bokk ci sëñ Tuubaa ñëpp. rawatina nag ñi bokk ci sëñ Tuubaa ñëpp. bis bi noo ko bokk. bis bi noo ko bokk. noo bokk sëñ Tuubaa. noo bokk sëñ Tuubaa. ñi bokk sëñ Tuubaa ñëpp. ñi bokk sëñ Tuubaa ñëpp. ñoo bokk lépp. ñoo bokk lépp. ñoo ngi woo ñëpp. kon ñoo ngi woo ñëpp. di woo mboolem këri diine yi. di woo mboolem këri diine yi. di woo bokki taalibe yi. di woo bokki taalibe yi. di woo ñëpp. waaye noo ngi soññ ñi nga xam ne ñoo bokk liggéey bi muy njabootu sëñ Fallou gi ak taalibe yi nañ taxaw gan ñi ci taalibe ci yar ci teggin ci berndeel loolu rek moo ci am solo alxuraan ji lépp moo ko waral lu kaamil yi bari bari moo ci gën xasida yi lu gën a bari moo ci gën euh, si si karsi lu ci gën a bari moo ci gën lépp rek nu boole ko def ko addiyee Cheikh Mamadou Fadal di ñaan jàmm nag ci réew mi sëñ Tuubaa kat dafa wax ne gisut lu gën jàmm ci àdduna gisut it lu gën jàmm ci àllaaxira ëllëg ko amul jàmm jàmm fa gën kon nag jàmm jàmm jàmm di fàttali bisu sunu sëriñ ba sunu mag ju baax ja alaaji Mouhamadou Lamine Fadilu ma nga xam ne bañ ne suba la màggalu Kazu Rajab boobee la ko sëñ Fallou woo. muy ku baax muy ku baax. koo xam ni koo xam ne. doon na sëñ Touba. doon na sëñ Touba. doon sëñ Fallou. doon sëñ Fallou. yal na ko yàlla nañ ko yàlla fayal. bisam baa ngi ñëw. bisam baa ngi ñëw. képp ku mën a teew Aliya. képp ku na nga fa teew. na nga fa teew. bokk ko ak taawam bu baax bi. ànd ko rakkam yu baax yi. ak taalibeem yu baax yi. ak bokkam yu baax mi ngi fàttali président Macky Sall. ak mboolem gouvernement bi yëpp. ak mboolem gouvernement bi ñëpp. képp koo xam ne ki yaa ngi yëngatu ci politique. ak képp nag koo xam ne yaa ngi yëngutu ci politique. nekk ci réew mi nekk ci réew mi. sëriñ bi nga lay woo. sëriñ bi nee na mi ngi lay woo. na ñëpp ñëw ci bisu sëñ fàllu bi. na ñëpp ñëw ci bisu sëñ fàllu bi. kenn ku ne ñaan la nga bëgg. kenn kon ñaan la nga bëgg. sëñ fàllu defal la ko. sëñ fàllu defal la ko. kàddu yoo xam ne ci ndigalu sëriñ Mouhamadul Bachir. mii jëwriñam ak sëriñ Abdul Fattah mii loxoom ak sëriñ Ahmadul Badawi mii seen ndaw di dem ak dikk ci laa yëkkatee sama kàddu muy xew-xew boo xam ne du lu ñu sos ñoom dañoo fekk seeni kilifa daa ko jëf sëriñ Mouhamadul Moustapha moom Cheikh Mouhamadul Fadil bay na ci tool bu rëy rëy rëy rëy Cheikh jëf na ci jëf ju rëy rëy rëy rëy sëñ Abul Baraka ñoo sof sof ca fa nga xam ne ay kilifaam fa lañ yemoon yàlla na fi yàgg te yàlla na wér bis la boo xam ne àdduna sépp ñoo ko bokk ndax al isra wal miraaj sépp dañ koy màggal foo mën a dem waaye nag waa Sénégal am ci seen xaasi bopp julit Sénégal am ci seen xaasi bopp waaye waa kër Serigne am seen xaasi bopp muy Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xam ne moo ci feeñ Serigne Fallou di jëmm joo xam ne àndaar la nattukaay la booy seet julit xaqan mooy Serigne Fallou booy seet murid saadiq taalibi Serigne Touba dëgg mooy Serigne Mouhamad mooy Cheikh Mouhamadul Fadil ca xam-xam bu bari ba ca jaamu yàlla gu rafet ga ca nangoo liggéey ga ci jikko jikko yu rafet ya ci amal njariñ jaami yàlla yi ak nangu kilifteef yooyu la boole woon te yooyu mooy àndaar ja ñu natte jullit bu mat jullit ak taalibe boo xam man na mën na ko sëkk sëriñ mi nee na mi ngi woo kilifa yi kilifa yi ci yoon wi aju ci sëriñ Touba yëpp la woo ak mbooloo yu nekk ci seen ginnaaw di woo kilifa yi diine yi ne ci réew mi ak fu ñu mën a nekk ak mbooloo yu nekk ci seen ginnaaw di woo nag ñi nga xam ne wàllu àdduna ñoom la yàlla dénk wàllu adduna mi ngi leen ciy woo. waa bitim réew fu ñu mën a nekk di taalibe Serigne Touba wala ñu ay mbokk yu dëkk senegal ak fu ñu mën a nekk daan fonk bis bi di ko taxawee di ko màggal sëriñ bi mi ngi leen koy bi nee na ñii ñëw ñu ngi leen di fàttali nag nañu def ndànk ndax sëriñ bi wax na ko léegi jàmm ca la lépp xaj nañu dawal na Serigne Fallou daan wax bu ñuy dawal nañu ne rëcc ne nikk ne jàkk. di daw ndànk ñu ne daw ndànk dañuy daan ndànk ba du ñu dal ci dara loolu la daan wax kon nañu def ndànk mooy tax ñu am jàmm nee na tam yi xew ci réew mi ci fan yii muy di tuur ay bakkan di tuur di rey ay bakkan yu deful dara mi ngi koy naqaru mi ngi koy ñaaw ndax réew mi xamu ko diine ji xamu ko yow na Sëñ Tuubaa xamu ko waaye la ko gën a metti nag mooy tuur tànk yoo xam dañu dañu duppee Cheikh Mamadou Fall nee na loolu di soo ko gànn mi ngi ñaan mi ngi massawu seeni di ñaan yàlla ku ci amoon Cheikh Mamadou Fadil te loola dal ko yàlla na yàlla mayaat mi na Cheikh Mamadou Fadil moo xam ne day toog ba ba tekki ba nga fekkee njëriñam ci barkeb Cheikh Mamadou Fadil. sëriñ bi tam mi ngi euh, xamle ne bis bi buñ ci àggee conférence bu mag bañ daan def ren ñu ngi ko tuddee maam Cheikh Ibrahima Fall. ndax kenn umpaliwul diggante sëriñ Fallou ak maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine kon mooy boroom bis bi moom lañ ko tuddee ren nag waxtaan wi mi ngi jëm ci. ni xam-xam amee solo ci diine lislaam rawatina yoonu murit ak njabootu sëriñ Tuubaa gi muy murit yi seen taxawaay ci suuxat xam-xam dekkal xam-xam indi nag sëñ Fallou mu nekk misaal nekk exemple bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee. woote bi man maa ngi koy aj ci woote maam suñu Ibrahima boobu suñu boobu ne woon wa asni fi naas bilaaji yaatu ak rijaalan wa ala kulli daamin yaati min fajin amiq li yasalu manaafi'a lahum li tax mu aj ko foofu liggéey borom ci ci ci biddeef yi yërmandeem ak njëriñam amul woon xaj ak seen amul jullit ak yëfër amul tiyaan ak murit njëriñal bindeef yëpp la woon yërëm bindeef yëpp de yërmaande jooju nag ah, da ko da ko da ko jëlee ci maam suñu Ibrahima mi nga xam ne moom ku ne xam na ne yërmande moom la moo tax mu doon mu doon muy xëjoon teg naa yëkkati ci buñ jëmee ci ku ñu ndax suñu boroom moo inna allah bi naas la raufur rahim naas boobu nag kenn génn ci moo tax moom mu liggéey muy liggéeyal yàlla ci yërmande jooju eh, sëñ Fallu it ba mu ñëwee fekk na sëñ Tuubaa moom yërmande jooju mooy moom moo waral yaa maalikal mulki eh, sëñ Fallu itam yërmandem jooju moom loo doon doxal ci àddina jëpp li ci siyaar yi gaa génn guddi képp la koo xam ne gii fanaan na Ndakaaru wax ne tey ñaan naa sama borom ku fanaan Ndakaaru doole sa war a kilifa yu bari ñu ngi teew 1956 sëñ bay ndaw na ko lakkir laay sëñ bi tubaab yi nag mu ne ko dañu doomu aadama kuy doomu aadama la wax génn moo ci kan kooku liggéey boobu mënoon liggéeyal boromam ci at yëpp sopp ko ci bindeef yëpp njëriñam ak ak ak ak yërmandeem amul xaj ak moo tax maa ngi woote maa ngi maa ngi koy wootal ci woote suñu maam Ibrahima boobee ku bëgg njëriñ rek baa nga bëgg yërmande ñëwal wusi bis bi nga xam ne ñëwati muy bisub Cheikh Mamadou Fadal na ma ko daan waxee rek képp ku nekk am nga bis waaye ñun ñoo ci raw ndax bis bi ni ma koy waxee rek sunu bisa ndax nun la yàlla duppee ñu tuddee ñu Cheikh Mouhamadoul Fadal kon bu bis bi ñëwee nañ xam ne bis bi sunu bisa képp ku ci ñëw dañuy jàppale kon nag nañu fas yéene fàttalikuwaat jàppaat nañ daan jàppe kenn ku ci nekk la nga daan def nga gën koo yokk gën koo fedd feddali ndax kenn ku nekk ci ñun de gis nag yokk ci boppam goo xam ni Cheikh Mouhamadoul Fadal def na ko nuy fàttaliwaat turandoo yi nga ne am ajo woon nañ at mu jot ñu togg ay ndab di ko yóbbu ci kër si Abdoulahi borom dër bi di ko dajale di ko séddale ci gani Serigne Fallou yi ak ci barab yi nga xam ne mooy jàngukaay alquran yi ak prison yeeg fu nekk nga xam ne ndab yi Serigne Fallou yi daana fa dem kon ñu ngi fàttaliwaat ndab yi kenn ku nekk gën a farluwaat ci sa ndab yokkaat ko defaat ko na nga na mu gën a baaxee gannaaw bu ndab yi wéyee tamit ñu ngi dellu di fàttaliwaat eh, sant Serigne bi mi ngi sant dégg ni daaw dañoo waxoon ne bépp daayira soppe buy ñëw boo jébbule si na nga indaale bool alhamdulilahi rabil alamina sëriñ baa ngi sant ren nag ñi ngi sàkku daayira buy ñëw na indi ay palaat palaat yoo xam ne dana mën a séddale bool yi moom tuwaar fakal la waaye palaat yu séddalee ñam wi moo des kon daayira buy ñëw rek ñu ngi sàkk nga indiwaat palaat loo ci mën a indi rek nga indi di fàttali def suñu liggéey bi nga xam ne ñëw na ci suñu liggéey bu liggéey boo xam ne liggéey bu jullit yëpp la liggéey bu yëpp la liggéey bu jullit yëpp liggéey bu taalibi la mooy lan mooy barab bi nga xam ne am nañ ndigal ci suñu sëriñ Cheikh Aboul Baraka mu dina ko liggéeyloo nun Seex Maodo Fadal yi nu bool ko yaatal ko nag ba nga xam ne boole nañ ci képp kuy soppe waaye képp koo xam ne nii boo amee soxla sa xel du dem ci kenn ku may Seex Maodo Fadal woo lañ la ci suñu liggéey boobu képp koo xam ne bëgg nga cee dugal sa ñaq soo demee ci banque yi may tudd muy BCEAO wala nga dem ci Afrique Banque Africa boo demee boo ne daayira daa xadaa yi turéelu kuréel day sëñ fàllu yi rek ci laa bëgg a wersi loo ca incha allah dana agsi ci liggéey bi altine le 2 am na mbale moo xam ne ni sëriñ bi wax na nañ ko bale dëkk bi setal ko dëkk bi kon nag képp koo xëy rek boo tàmbalee sa buntu kër rek nanga nga tàmbali setal ñu fa yéene fépp set waa nag Italie ñu wax ne ren jii ña nga koy amale ca Brescia nee nañ ca Palmarès bu Brescia foofu lañ koy amale ci saal bu mag sëriñ bi mu ngi fàttali ne bépp ndaw boo xam ne daanal la yebal ci dëkk dëkk ba mu doon yebal feddliwaat na loola nanga fa delluwaat taxawalaat ko fa ñu màggalaat fa bis bi màggal fa Cheikh Mamadou Fadal ñu ngi leen di fàttali li nga xam ne kenn fàttewu ko ni ko bokk yi jiitu waxee rek muy euh, conférence bi nga xam ne moom la ñuy waajale màggal gi te ren ji incha allahu taala nuñ ko baaxoo defee buñ nee ginnaaw suba la lay doon ren ñu ngi ko jàpp fukki fan ak benn ci weeru avril war a tolloo ak ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru rajab muy buñ nee ginnaaw suba la màggalu kasu rajab ren nag mu am ak soppe soppiku ko ndaw gu ci am ndax dañ ko daan def euh, ci waxtu guddi ginnaaw gee waaye ren nag ci ndigalal kilifa yi ñu soppi ko di ko def gi ginnaaw takkusaan foofu itam ñu ngi ñaan bu baax ñi nga xam ne ren ji yàlla dogal na ñoom lañ ko tuddee di waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall te loolu yaakaar naa lu neex Cheikh maanaam Cheikh Mouhamadul Fadl la ndax ku ne xam ne seen diggante ci ci ci ci cofeel ak ak ak bëggante ak wëllëre ñu ngi leen di ñaan rek ñu ñu teel a ñëw balaa takkusaan ñu man fee julee takkusaan nga xam ne bu ñu sëlmalee rek daal di tàmbali Euh, ñu ngi ñu ñu muy muy loo xam ne baaxoo nañ koo def di ko waajale bis bi muy ay ay ay ay waxtaan ak i ndaje yoo xam ne dañ koy euh, maanaam sédde ñi nga xam ne ñooy waa kër Cheikh Amadou Fadel ñii di ay bokk ñii di ay taalibe xam ngeen ne daaw defoon nañ ko ren ji itam ñu tànn ñaar kenn ki nekkoon mbokkum Cheikh Amadou Fadel doon nijaayam di sëriñ Ibrahima Bousso loolu lépp tabbi ci biir li ñuy tuddee ar rajabiyaat moom itam incha allahu taala mi ngi war a doon le 30 muy ajjuma bu soobee yàlla foofu it ñu ñu ñoo ngi ñaan mboolem ñi nga xam ne ñoo ci war a dem rawatina sët yi ak ñi nga xam ne ñoo war a teew ci bis booba ñu teel a ñëw fii ci kër gi fi la ñuy dajee incha allah balaa 5 ngi ngir ñu mën a waaj àndandoo dem teew foofee. beneen bi ci des itam mooy bi nga xam ne dañ koo féetale suñu baay baay suñ bay sàll nga xam ne moom itam kenn la ci ñi àndoon Cheikh Amadou Fadal moom incha allahu taala mi ngi war a nekk le 7 avril. moom it comme ni ñu ko waxee rek ci bisu sëñ maanaam sëñ Ibrahima bi rek moom it ñu ngi sàkku ñëpp teel ñëw ngir ñu mën a àndandoo dem teew foofee ñu ngi woo ñëpp nag waaye rawatina nag dawaa dawaayiru al ahfaad mboolem daayira sët yi nga xam ne ñoom lañ seqal sëriñ bi ak bokki sëriñ bi ak seex yeeg yëpp ñu ngi leen di woo ñoom itam di woo ñëpp bàyyiwuñ kenn ñun waa Ndakaaru dafa am ndigal luñu amoon ci bis bi ñu toogaat fii di leen ko fàttaliwaat muy ndigal lu suñu jàmbaar ja joxoon muy Cheikh Moustapha Mbacké Falilou moo ne yoon waa Ndakaaru li bëgg ci ngeen def ko ci bis bi mooy bis bi ñëwee na ngeen dajaloo yéen ñëpp ca Padoa dajale fa def waa ñëw fekk ma Touba fu ngeen romb ñu xam ne tey la bisab sëriñ Fallu comme nag loolu sëñ bee ñu ko digaloon te digal loolu ku fi ñëw yeesalaat nga ko kon ndigal loolu rek lañu fi fàttaliwaat kon mbooleem fédération daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci Ndakaaru ak soppi ya xar yi te fas yéene ñëw ci bisab sëriñ Fallu bi li ci suñu ndigal moo ñu dajaloo Touba Padoa def waa ñëw fekk sëriñ bi fii ci ci màggal gi convoi bi nag ñu ngi koy def buñ nee suba la màggal ga waaye dafa am leen loo xam ne dañ ko ci fàttaliwaat mbokki taalibe yi bu ñu sañoon day départ bi ak convoi bi ak mbokki daayira yi ñu teelal ko lool ndax bis boobu day mooy bisa sunu jàmbaar ja moo Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Falilou te ni ñu war a taxawee ci bis bis bii dañu war a taxawee ci bis booba kon nag suñ sañoon convoi bi teel a départ ñëw ñu siyaara sëñ bi dem allié ci bisab Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ba ba mu àgg ñu ànd ak njaboot gi ñëwaat ci bis bi fenn fenn fu nekk ci fi ñu wër ci frontière yëpp ni ñu leen fa jógee di ñëw di màggal si ci bisab bi kon nag sëriñ bi nee na autorité yi nga xam ne ñoo nekk ci yoon wi ñu ngi leen di ñaan ñu yombal mboole daayira yi nga xam ne ak taalib yi nga xam ne ñoo ñëw ci màggal gi di jaar ci volontaires yi suñ fa ñëwee noonu xam ne bisu sëñ Fallu la ci sëñ bi leen jëm si te ay mbooloo la ñuy doon kon nag sëñ bi nee na mu ngi leen koy soññaat di leen ñaanaat na leen ci daan jàppale ñu jàppale waale ci ba ñëw gi jàppandi lool bis baa ngi noonu ajjuma lay doon fukki fan ak ñett ci weeru afril di ame fii ci Touba Cheikh Mahamadoul Fadal mi nga xam ne nee na woon bëriwuma du ma doom ji bëgg a doon baayam du ma taalib bu bëgg a seex damaa fab lépp tàbbal ko ci biir sëñ sëñ tubaa loolu moo tax bisam bi jàkkaarloog jumaa yi sëñ tubaa ji ab liggéeyam tool bi ci la daan xëy daan ci gont ba jébbal ko sëriñ tubaa wax na ko fii la jamono tolloog ñun ñu tolloo fekk yow buñ ko jamono weesoo ñu woosale la ko kooku nag moo faboon léppam lebal ko yàlla bisam baa ngi noonu di ñëw juma lay doon sëriñ bi nee na mi ngi ciy woo ñëpp bàyyiwul kenn mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi yëngutu ci lislaam ak fuñ mën a ne sëriñ bi nee mi ngi leen di woo waaye nag na ko sëriñ bi waxe léegi sëriñ bi njariñul doomu aadama yëpp la képp koo xamante ne bi bëgg nga njariñ wala nga bëgg yërmande ñëwal Touba Cheikh Mamadou Fadal mooy borom yërmande ji mi woo ñëpp nag waaye di leen fàttaliwaat nag bisub jàmbaar ja taalibeem bu mag ba di bisub Cheikh Mahamadou Lamine Baara ba nga xam ne alxames lay doon mooy ubbi kasu rajab bañ ne suba la kasu rajab la ko Cheikh Mahamadou Fadal woo ci boppam fay ko bis boobu nag Serigne Moustapha nee na mi ngi koy soñ ci ndigalul Serigne Abdoul Fatah ko soñ ci ndigalul kon ñoo ngi ñaan képp koo xam ne jóg nga ngir teew si Touba yàlla na la yàlla gàttandoog ndimbalam